ñu ngi noonu ci premier combat bi ci compétition bi muy poule A dox ci diggante Bukki Ndangaan ndaysaan Bukki Ndangaan ak Serigne bu Faas Bukki Ndangaan Serigne Ndiaye ngi noonu refe ka ando tamit o inum gaɗiɗan parce que mafel ke i mberanta ayo e yim nene waga ndeysaan ñu ngi noonu fexe ine fe boros deuxiéme o comité territorial parce que groupe ina transitoxta maga premier tour a ten na rek twafa deuxiéme tour deux premier tour deux a reta deuxième tour deux donc yen na taxe yite ñak nomne e fo o bataxe boros deuxiéme i jega koy ngeen li arbitre bi wax di Malick Ngom ndaysaan mu bokk ci juge yi ma nga fële ca table ba toog wax na poule A bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a daje combat bi njëkk bee ngi ni dox ci diggante Bukki Ndangaan Ndaysaan ak Serigne Ndiaye 2 ñoom ci poule A bi la bokk bi mooy seen premier combat ci compétition bi ay ca ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi ak Serigne Ndiaye. ndeysaan. toog nañ mu ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi nangu ak li mu bañ il est dix-neuf heures et quart ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ndaysaan Serigne Ndiaye jox na loxo arbitre bi jox na loxo adversaire bi ndaysaan ñoom ñaara ngi noon présentation yëkkati na loxoom bukki ndangaan ayca bukki ndangaan a ngi noonu ndaysaan ayca général Thiaka Faye bu noppee ñoo ciy topp arbitre baa ngi noonu di wax ak ñoom ñaar lu xew lan moo xew ah gàllaajeel la ñuy dindi caaka moo teel a indi ay butéelam. arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye 2 moo la woon ginnaaw Bouki Ndangaan moom nga jàkkaar ñu ngi ci tournoi bi ba tey ndaysaan Teranga Sport moo ñu fi woo ñaari xale yaa ngi noonu Serigne Ndiaye ma ngay ngàdd Bouki Ndangaan daw na jëli tànk bi jël na ko takk na takk na takk na takk na dóor na ko ci suuf wër na ko ndomba wër na ko ndomba daan na ko Serigne Ndiaye 2 daan na Bouki Ndangaan Serigne am na 3 points Serigne Ndiaye am na 3 points ndaysaan ma ngay ñëw moom Serigne Ndiaye 2 nee na gaaw leen ndaysaan nee na gaaw leen ma ngay tekki gàllaaja ndaysaan ma ngay tekki gàllaaj ndaysaan ma ngay tekki gàllaaj Ibrahima kaay